Il faut rappeler que la, plénière avait été convoquée pour 10 heures et que la journée d'hier avait été laissée exprès chômée à l'effet de donner aux différents groupes les possibilités de présenter leurs propositions et de s'entendre entre eux. Nous sommes là depuis 10 heures, il est 16 heures. 6 heures de temps, les groupes ou certains groupes ont encore des difficultés pour proposer leurs membres dans les commissions et surtout les présidents de commissions. Le premier jour et le deuxième jour, c'était encore des rixes et des batailles, non pas autour de principes, parce que finalement les gens ont voté conformément aux principes qu'ils avaient répudiés, mais pour des postes. Quand, ils sont, quand on s'est entendu sur les postes, les procédures et les, motifs sur les procédures sont tombés. Aujourd'hui encore, on est là jusqu'à 16 heures. On ne sait pas jusqu'à quelle heure on sera là pour des histoires de poste, si je comprends bien. Il n'y a aucune autre raison. Et le plus scandaleux, c'est que à 10 heures, on aurait dû au moins ouvrir la séance et dire aux députés qu'est-ce qui se passe. Parce que manifestement, nous ne sommes pas, nous sommes des représentants élus du peuple, nous avons tous la même dignité. Le président, du, bureau de le président de l'Assemblée nationale aurait dû se présenter, convoquer la séance, et les groupes qui ont des problèmes, on saurait quel groupe a des problèmes, et ils, ils auraient pu aller régler leurs problèmes. On suspend jusqu'à demain s'il le faut. Mais faire perdre du temps aux gens, vous faire perdre du temps, c'est mauvais signe pour le Sénégal. Les urgences sont importantes. Les urgences sont nombreuses et l'opposition, comme le pouvoir, tous ont dit il y a les inondations, il y a le chômage, il y a la vie chère, il y a les jeunes qui attendent avec espoir en espérant que cette assemblée constituera l'assemblée de rupture. Il n'y a aucune rupture. Ce qui se passe est pire d'ailleurs que ce qui se faisait avant. Je ne saurais vous dire, vous n'avez qu'à, vous avez les représentants de tous les groupes. J'ai eu l'occasion par hasard de rencontrer les trois présidents de groupe réunis euh, par hasard. je leur ai dit, vous avez la responsabilité, vers, vers 11 h je leur ai dit, vous avez la responsabilité de faire en sorte que nous ne soyons pas dans le ridicule et que nous puissions aller très vite parce que manifestement, les problèmes bloquent dans vos groupes respectifs. Il est 16 h et on espère que à l'avenir, ce ne seront pas encore ces marchandages d'épiciers, de tapissiers sur je veux être tel président de commission, je veux être tel qui vont faire bloquer la République. Nous avons promis aux Sénégalais des ruptures. Nous leur avons dit que ça va changer, ça doit changer. On est au 21e siècle, le monde avance, le monde n'attend pas l'Afrique. Mané, 10 heures la ñu woo tey talaata la démb altine dañ leen ko bàyyiloon ci li ma ci li comprendre pour ñom ñu mëna a gise ci seen i biir groupe bu né gise pour andi ay proposition yu mu yu muy ci commission yi xam nañu groupe bu né ban commission ñaata commission la war a jël waaye ba tey jii nii dafa mel ni na groupe yoo xam ne d'accord guñu ci naka la ñuy séddoo seeni poste euh, commission yi muy président de commission ak yeneen maanaam teraanga yi ci nekk parce que wax ji loolu la xam nga premier jour bi tamit affaire u la woon rek bu fekkonte ni ñaari euh, candidat la ñu amoon coow li yëpp du toll nii lañu bañoon voté moom lañu ñu voté ci ëllëg si loolu il faut sénégalais yi xam ko coow li bëri woon na lool tey jii nii il faut nit ñi xam lan moo xew lu bloqué actuellement affaire poste la ñun fi depuis dix heures ba ñu te président bi dafa waroon ñëw ne député yi ñun ñoo leen ñun ñoo nangoon ni dix heures la ñuy commencé dix heures jot na léegi nañu woote ba xam ndax mën nañu commencé am déet ñu xam. bu boobaa dinañ xam ñan ñoo bloqué ak lu tax ñu bloqué ndax dañ leen di may app wala ndax dañuy dàq liggéey bi ba ëllëg waaye quatre heures a ngi nii mun nañ fi toog ba minuit xamuñu ci coobaree ñenn ñi rek ak seeni dëgër bopp ñeneen ñi bañ a bàyyi lii mooy sama cër lii laa bëgg moom moom ñu fi tënk ba tey jii nii dama ni sénégalais yi dañu wax assamble bu bees boo xam ne dinañu liggéey taxaw sénégalais yi taxaw ci ndóol gi taxaw ci dund gu cher bi taxaw ci ubbi école bi nara a jub taxaw ci yeneen problème yu bari chômage beeg yooyu mu ñu foog 10 heures ba 16 heures juróom benni waxtu ñii di naani kafe ñii di taxawaalu ci couloir yi ñii di lire seeni livre ñii di téléphoné ñu benn liggéey bu am solo yéen ngeen taxaw fii di xaar ñu leen wax dara mais ay intérêt personnel moo bloqué mbir mi mun nañ ko nag après bu ñu génnee habillé ay wax yu bëri comme nu ñu mën a bëri comme yu fi jaar yëpp yu fi jaar keroog talaata altine ak talaata ay intérêt personnel la rek dañ ñëwoon ñun sama sama charge gi dañ ñëwoon faw ngeen wax fu ngeen far <laughs> commencé di ñu saaga ba résultat yi génnee rek ñu commencé ne faw ngeen taxaw wax fu ngeen far ñan ngeen nar wooteel <laughs> mais ba ñu amee ñetti candidat opposition benn candidat pouvoir xam nañu woote affaire bi noonu parce que ñooñu doon wax bu ñu far bu ñu amoon benn candidat <laughs> wax ji dina gëna a donc nañu bayyi di xaxaranteeg di kiiwante té sénégalais yi tamit comprendre lan moy xew actuellement ni am ngeen pouvoir bi fi am ngeen opposition bi fi dem leen laaj ku nekk xam nañ dal ñun duñu candidat ci dara ñu ngi fi depuis 10h ñu ngi xaar lu gënon rafet moy ñu laaj ñu wot nit ñi wax leen ni li même yeen ñu jox leen ay information wax leen ni aj nañu wax wax ji bëgg 14 heures wala ba 16 heures boo amee yeneen soxla nga doxi ko ñëwaat. merci beaucoup merci beaucoup.